bokk yi fi daje salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu e, nu ngi ziyaar ñëpp massawu coono di baal waaqa e jot barewul e, itam li solo dafa mel ni kilifa yi jotal nañ ko am jataay yiw ba ñu cay yaakaar rek moo am solo mel na ni tabaarakallah firnde yi ci jataay bi wan nañu li ñu ci yaakaar incha allah yàlla mën nañu ko mottalil e xanaa bala ñu tàmbali rek du gudd nag incha allah wax bésu koor la itam bëccëg baa ngi waaj a sori ñu nekk ci dëkk bu xaw a xat Dakar dafa xat rawatina jamono koor gi e, ku ne bëgg nga ah mën na teel a pare teel a yegg ah itam koor benn noppalewu ca daan dégg ci Seyd Cheikh Ahmed Tijaan si radiyallahu anhu muy wax ni ku leen ni ñeme naa koor rek ne ko umu waaw parce que nee koor ya caaju yëpp du xiif rek que dafa amee xaalu boppam dafa amee yaru boppam dafa amee tegginu boppam dafa amee sellalu boppam waaw. waaw yooyu bu dajee nag eh du caa gënu xëy ñàkk bañ a lekk fajar ba timis daraja koor ëpp na loolu su ko defee kon ñu ñaan yal na nu ko yàlla defal nangu nu koor gi nangu ñaan yi nangu jaamu yi jéggal nu njuumte yéeg néewal yéeg matadi yi ci ful ko yëkkati ko boole ko ci yiw yi gën a màgg mu di ko defal jàmm mu defal nu ko e waaye ngeen may nu nu sant nag sunu kilifa bopp gi di sunu wayjur di sunu mbokk ñaare man sawaruma ci daje waaw duma ci sawar wante nag moom am na lu bu nu ko waxee dañu cay xawa a sawar tuuti wala ñu sawar ca bu baax rawatina nag muy jataay bu ñu séddee ku nu bokk nun ñëpp mu di magu leer di magu daara di magu sunna di sunu maamu bopp ji Cheikh Alhaji Abdoul Hamid Kane radiallahu e, sant ko bu bu gën a sawar rawatina nag mu di ma ñaan may yoon njaboot gi amee liggéey bi ñoom itam ñu ñu yitte di ko dale ci président bi Seyd Lamine ah jaar ci ñoom Ousmane jaar ci sama mbokki kaneen yi suma nijaayu bopp yee ca des Cheikh Mouhamadul Mansour ñëw na set si ma Cheikh Mouhamadul Amin kan moom itam mu ngi ci jataay bi nu may nu ci yaatal nu ci sedd ci moo tax ñu sawar ñëw ci euh, ñëw fi nag ci turu kilifa yu baax yi ñu amul yu dul ñoom muy ñi ŋànk kër Seydil Hadj Malick radiallahu taala li ko dale ci xalifa bi di sëriñ Babacar Kane jaar ci porte parole bi di Serigne Pape Malick et ak ñu baax ñi ñu ko bokkal ñépp Seydi Hadj Malick bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz rakkam yeeg ñu baax ñëpp tabaarakallah e, defe naa ni e, loolu rek doyoon yëg seen ngëneel di ca nekk rek doyoon na kon nag ñu ñaanal leen yàlla yàlla taxawu leen jàppal leen te kattanal leen ci seen yeen ngir daraja ki tax ñu di ko def mu di góor gu tedd ga Cheikh Seydil Hadj Malick radiallahu taala anhu et Cheikhul Hadj Abdoul Hamid nag boroom cër la wante dafa jëloon nag cëram seeyal ko ci cëru Seydil Hadj Malick radiallahu anhu et waaye terewul itam mu jot cëram ndax joxe cër terewul nga jot sa cër ah la ko yàlla suturaale mu wéy ba ci njabootu boppam yi bu nu ci àddoo nga xam ni tabarakallah nampal nañ leen ci leer nampal leen ci xam-xam nampal leen ci jikko loolu yal la ko yàlla saxal yàlla dinu nu at mu ne ñu koy mën di ñëw di ko fekke si di ko ànd ak moom di ko ànd ak njabootu góor gi di ko ànd ak suñu mbokk taalibe yi Ah, ah di ci gën a nag eh, sant soxna yi ni ko Serigne Ousmane waxee sànq eh, ñoo amee lépp bu jigéen ñi téye woon seen loxo rek ngant dana bari lool bu ngeen génnee ci àll bi rek xam li ma wax Sénégal bu deewul rek jigéen ñoo ko taxaw rawatina ci àll bi eh, soo demee góor ñi moom ñu nga ca grand place yi di soow suba ba ngoon waaye lay taxawu kër yi taxawu njabootu àll yi taxawu jur gi jigéen ña ñoo ko amee moo tax dinaay wax ni réew mi kuy ñaanal ñaanalal ñëpp mais nga na nga gën a ñaanal jigéen ñi ah man de ñëpp xam nañ ko ci man dama adhéré ci seen cause dëgg la nag yi leen wër dafa bare waaw ah, waaw waaw daan dama adhéré ci seen cause nëbbu ma ko wax naa ko fu ne ah, li leen wër nag dafa bari waaw temps rek e na lu ne na ngeen koy war a jekkoo ak na ngeen koy war a tale du ngeen ko man ba mu jeex wante rek xanaa luy bëree waaw ndànk rek dana ñëw incha di di seppi rek parce que bu la téeméeri yëf waree da ngay yi gën a néew njariñ da ngay seppi rek seppi ba xëy li ëpp njariñ tabaarakallah nga téye ko eh, def ko mu di sa liggéeyukaay ay kilifa ñëw nañ fii euh, les ministre de l'urbanisme am na tabaarakallah kàddu yu mu fi bàyyi xam naa bëggoon naa mu toog tuuti ma tooñ ko sax waaye eh, du ñàkk yóbbal bi dana ci jot incha allah parce que ñoo séq réew mi te fii ku fiy taxaw rek ñaare bu nu taxawul wax ne xam nañu ci sa mbir dara bu nu wéetee xam ca dara moo tax mën nañu di wax ak ñëpp te du jur benn xat-xat eh, dafa mel ni nag ndaw lu xaw am yéene le am taxawaay faaw nag ñu di ko jàppale ci gis-gis di ko jàppale ci cawarte di ko jàppale ci ñaan waaw loolu ñu ngi ko koy jotal ndax dafa tudd kàddu yu am solo ci yi nu war jekkalaatu réew mi parce que réew mi dañ ko war a jekke jekkalan parce que réew mu yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar Seydi Cheikh Ahmada Tijani am fi ku mel ni Cheikh El Hadj Malick am fi ku mel ni Serigne Touba am fi kaneen ñoo xam ne yàlla leeral seen mbir nu dem ba réew ma gérer poubelle mënatuñ ko war nañu seetaat lu ko sabab te Cheikh Mouhamad Hamid eh, bu Mauritanie bi mu njëkkee ñëw visiter Dakar daf ci def benn poème sur la ville de Dakar xasida ba mag ñi ko jàng ñépp seen yaram dafa daw ci boote wu texte bu rafete noonu ci ci ci ci Ndakaaru Qaadi eh, Abdourahman nee na bi ma jàngee xasida bi mu yéem ma Xaadi Abdourahman ci xulafaaw Seyid Cheikh Ahmad Tijaan yi la bokk nee na mais bi ma jàngee xasida bi mu mu ci man dama tëdd ba guddi ma gént ndakaaru fees dell ak mbalit te c'est les années cinquante mu ni dafa jàng xasida bi gis ndakaaru fees dell ak mbalit mu jaaxle nag xasida bi ni mu rafete poème bi ci Dakar ak moom li ko yàlla wan ci tegtal ci gént gi waaye trente ans quarante ans après Ndakaaru fees dell ak mbalit et kooku nag il faut que nu wutal ko solution bu gudd fan solution bu sax et dégg naa ko itam mu tudd ay réew lu mel ni Rwanda tudd Maroc tudd réew yu nuy bàkk ci Afrique jàpp ci réew yi ñu mën a jàppee royuwaay ci la bokk euh, euh, faw nu seet la leen ko may lan la parce que Sénégal compétence bu ñu gérer réew mi waxuma la réew mi mais continent continent Afrique compétence bu nu ko gérer Sénégal am na ko hmm? lu sax kon nag bëgg a gérer réew mi jafe bëgg a mbalit jafe bëgg a gérer santé jafe bëgg a éducation jafe war nañu seet sabab bi lan la mais man gis nga réew yooyu mu tudd fii ñu wax seen manin dama jàpp ni gannaaw yàlla facteur ba leen njëkk a dimbale ñu am résultat yooyu kilifa ci la bokk parce que foofa kilifteef am na fa Kagame li ñu koy reproché du nee nañ ah, amul assez d'ouverture démocratique mais loolu moom résultat yi muy wane ci li muy doxal ci réewam rek doy na ko lay ah demal Maroc hmm? tabaarakallah eh, buur ba sax doonul ku fésal boppam loolu loolu loolu mais li ñu ko war a nangul yëpp nangul nañ ko ko boo ko duggee rek xam ni kilifteef am na fa mais Sénégal nag boo koy seet at yi ñu génn fukki at ba yi at yi ñu génn li réew mi di commencé di ñàkk mooy kilifteef demee ci diine ji problème boobu mu ngi commencé posé nga dem ci ci politique bi problème boobu mu ngi commencé posé wu moom mooy ministre de l'urbanisme mais dafa am bu toogoon tuuti ma wax ko xam nga Senghor bi mu nekkee président bokkoon na ci ci ci li mu tëraloon comme atte mooy quartier résidentiel du am lu ëpp R taax ba du ëpp benn tabax ci suuf ak benn buy tagu ci kaw fépp bu fuy quartier résidentiel loolu la Senghor tëraloon nu doxal ko ñu sàmmoonte ak moom bi ci des ñu bëri woon ba ndakaaru quartier bu ne amoon na architecture boppam HLM am melo boppam SICAP amee melo boppam fan Point E amee seen melo bopp Gibraltar amee melo boppam dëkk bi boo dugg see xam ni ni ñu ko tabaxee am na xaal bu ñu bëgg mu sax mais dëpp Senghor jógee fi ba léegi loolu lépp dañu ko bousculer day quartier Dakar yi de boo duggee da ngay demee ni ci canyon américain nga nekk sax yéen yëg ca kaw a kaw yéen ci suuf yéen ci diggante bi eh, mooy wane nii bu nu doxaloon kilifteef ba mu jeex am na yu bari yu ñuy jàmbat ci réew mi xëy na mën na am dana tane ah xaw ma nag ku fitam egg ci mën a delloo si loolu parce que kattan gi ko war a def mu ngi fi. yoon yi ko war a def mu ngi fi mais kan nag taxawaayam ak gis sem ak mëtam mayu mu doxal loolu fa la liggéey bi nekk waaw parce que am loo xam ku ko bëgg a defar faw nga yéeg ca kaw waaye bëgg defar réew mi bu tayee nga yéeg ba ca kaw bu subaa nu fekk la ci suuf ngay jéexandoog nit ñi bu yàggee daraja ba nga war a am ak ak ak xaal ba nga war a am pour yenn yi nga mën koo samp du yomb moo tax kooku ñun dañu ci attirer seen attention noonu rek eh, bi ci des nag c'est un fait de civilisation adduna dafay gën di rës euh, lu demal ci Amérique demal ci Russie demal ci Chine demal tëb adduna man-man yi kattan yi xel yi li muy résultat yi muy joxe dafay gën di rës te kooku nag dama dégg kenn ci seen dirigeant yi à l'époque mu di Helmut Kohl mu fi mas a nekk chancelier allemand mu wax ko mu ni li leen wutaleeg dirigeant yi jiitu mu ni eux c'était des géants waaw nee na dirigeant yi jiitu fondé Europe fondé yëpp nee na c'était des waaye nee na ñoom ñi ci topp nag c'est des gérants man waxuma ko Helmut Kohl ci boppam moo ko wax gis nga mentalité de gérance boobu bu nu ko dépassé wul am na yenn xeeti idéo ay yenn kawewu gis-gis ak kawewu dëkkin ak tëralin bu nu ci génnul gëw ma ni delloo si ko dana yomb nu nuyu ko moom Cheikh Abdoul Karim li ko Serigne Babacar kan wax ma sañoon mu bàyyi ci xel te tur bu yàlla moom rek nañ ko bàyyeeg yàlla bu ca boole abd nag ku lay woon a jiital abd ji parce que da nga koy xet te la mu mën a jur yëpp doo ko xam te yàlla dafa dafa dafa Seydil Hadj Mali radiyallahu anhu nee na bu doon am na tur wu ñu ko mën a wutal mooy njuuy njuuy yàlla bu doon am na tur wu mu méngool dëgg dëgg dëgg mooy njuuy l'art de l'esquive te ma ko waxoon moom Maodo ma ne moo tax ku nuy tagg sax nu yamale tagg ba ndax nee yàlla lu ëpp rek mu xuuf nee na tagg sax nu jéem a seet lu ñuy yemale tagg bi parce que nee na yàlla lu ëpp rek moo xuuf moo tax Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu daan digal njabootam naan leen suñ leen di tagge lu ngeen yëgul ci seen bopp da leen jàng ñaan ba allahumma jaalni fawqa ma yadunnun واغفر لي مما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون Ô ah, oh Seigneur, place-moi au-dessus de leurs soupçons. Ô ah, oh Seigneur, place-moi au-dessus de leurs soupçons. Pardonne-moi pour tout ce qu'ils disent en toute ignorance et ne m'associez pas à leurs propos. waaw yàlla fa ñu ma njorte yàlla na nga ma yóbbu fu ko gën a kawe ah, te lii ñuy wax doonuma ci dara sax ah ay rek na nga ma jéggal te seen baatu njuumte yooyu itam sagal ma boo buñ ma ca bu ma ca boole waaw pour wax la ah yooyu il faut góor nu góorgóorlu di ko delloo si ndànk-ndànk parce que réew mi xaru man dama gis benn responsable politique dans les réseaux sociaux muy wooye boppam guy ci guy ci et c'est dangereux seen sëñ Babacar nee na cat sax faj ko yombul waaye ki catu boppam nag nee na kenn la mënu la wutal tafara moo tax si mu gisee compétence bi moo am ak ci résultat politique am toll ma ni man soupçonné naa loolu nanu ko wattu te bari na ku la tere nelaw te moom nelawul Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu ku sa xel ma sa jaaxle ca jamonoom nga yuut ku la ñaanal sa xel ci moom lay dem wante dafa daan jékki buy génn mel ni dox bi dafa jafe day xaw mel ni luy diri tànk bi ba dañ koy faral di may tuuti loxo ndeysaan bu génnee nit ñi naan ah góor gi de seddam bee yëngooti rek góor gi de seddam bee yëngooti ndeysaan muy muy maslaa kerse gi maslaa kerse gi ba dugg siwaat ci kër gi waaye bu dugg see ba ñu ko ba mu toog ci néeg bi dafa naan ah xamuleen li xew wax ma ne seddam bee yëngu seddam bee yëngu mais xamuleen lu xew wallaahi mu ni sama gannaaw gi lañu ñu tookee ba ma du ma yëngu ah te booba kuy ñaan lu gannaaw yàlla moom nga bëgg mu ñaanal la ndax jàpp nga ni bu ca ñaanee am lu yàlla ruus def ko waaye mu ni gannaawam la ñuy tookee ba ma du la yëngu la boo defee ni tabarkàlla mu nga ca noflaay ga fekk na la muy wéye bu ko waxoon àdduna tukki ma tax ma dégg ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si mu ni wolof nee na la gor di wéye yàlla bu ko gorne moom xam yàlla bu ko kàccoor xam mu ne ah yàlla bu ko gorne moom sax xam soo defee kon loolu ngeen baal ma dañu fi fekk ay kilifa ñu di boroomi responsabilité te nun itam dañu am wàll ci réew mi saa ci kattanu yàlla duñu wàcc mukk yàlla nu yàlla di may kattan ak xàmmee ak sutura bu nu ko mën di saxale rek ci barke ñi tax ñu mën di ko def mu di boroom leer yi tabaarakallah ñu sédde bis bi guddi na dama sàcc te jàmbur jox leen ko ndax xale yi doon def colonie de vacances il y a trois ans ñoo ma ñaanoon ma ñëw tëjël leen seen colonie ma ñëw rek par test di test seen gis-gis ci fi ñu toll ma laaj leen ñetti baat lu leen wutale éduquer instruire enseigner. man leen y a-t-il des est-ce que dañuy xëy rek éduquer jaar na la instruction jaar na la enseignement jaar na dafa am lu leen boole xam naa thème bi sax jàngalekat yi ñoo ko waroon a waxtaan diggante Haj Badi Fatou bile ak Serigne Ousmane mile ak ñi nga xam ni dañoo am cër di jàngale ak di yaraate ñooñu ñoo waroon a mën a waxtaan thème bi wante e wàllu yar dafa interpeller ñëpp famille yi gouvernement yi ñi ci quartier e xëy na sax am na bu njëkk lu amoon daan na tane mooy da nekk ci quartier nekk fa ak sa nawle xàmmewul doomu boppam ak doomu kaneen war la jubbanti mu jubbanti la ku mu gis war a wax ak yow mu wax ak yow waaye léegi ku ko ñemeeti wax doomu jàmbur ku ko ñemeeti doomu jàmbur ku ko ko def coow la bari yàqu-yàqu ya bare ah. waaye bu njëkk loolu ci pouvoiru dëkkandoo yi la bokkoon waaye léegi kenn sañatu ko ndax fi àdduna toll e nu toll ci période bu crise yi bari surtout ci wàllu yar yar nag dañ ko moomale école école waaye yar ci biiru ndey lay commencé ah ci biiru ndey lay commencé ah parce que dafa am notion bu nuy wax ci ci wàllu psychopédagogie notion de sens de la perception ruux li idrak sens de la perception kooku dañuy wax ne xale xale bu bu dem bay dëgër te yëgunu ko ci moom bu màggee rab lay doon rab mais sens de la perception ci ëmb lañu koy tàmbalee di def ah am na góor ñu ko rëy ay jaadu na sa soxna bu ko yàlla mayee mu am lu muy yëg ci biiram yow mi borom këram léeg nga làmb seddal ah nu mu def mbaa yëf yi sonalu la ba tey nga fóon fii ba léegi nga raaye fële mais sans perception foofu lañ koy tàmbalee ci nit parce que ku dalul doo ràññee xanaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax bi mu jaaxlee ci li ko yàlla wax ni ko ñi may ñi may ñi may sanctionné ci ëllëg moo ëpp ñi may gërëm mais xaw na ko jaaxal mais lan la ko yàlla man ku ma sanctionné rek fekk da nga dalul ko taxam naa ni sa ñaan mën na a dalal ah atasalli alayhim la ko wax waaw ruux am jax-jaxal mënuñu dal yàlla nee na ko sa mën na di leen dalal watasalli alayhim ndax inna salawaatuka sakanun lahum di nga dal dal boobu eh, itam doom bi yu waajal balaa ñëw il faut que ñu jéem dimbale xaal xaal bi yaayam di nekki mën a favoriser bu ñëwee mu am dal-dal boobu la waaye gis nga kër yi yàqu-yàqu yëngu-yëngu yi wax ne li sax xale bari nattu léegi mooy la mag daan dund ci kër léegi xale moo koy dund ci kër waxu fitna yi yëngu fitna yi dóor toj loolu bu njëkk mag mag ñoo ko daan séq xale du ko fekkee waaye léegi xale yi sont les témoins ba tax jubbanti kër yi ba dégg naa ci kilifa mu wax ni am na xeetu kër yoo xam bu fa xale juddoo defaru si du du du tax waaye fekkee si kër gu tas rek moo tax moo tax loolu il faut que nu bàyyi ci xel xale foofu lañ koy waajale ba mu xëy doon xale bu ndaw bu doonee xale bu ndaw naka lañu koy defe moo am dal-dal dañuy fexe ba xaalam di ko gën a pousser ci muy wut dugub di ko may ganaar di koy may picc di ko may xar que di jël xeer di ko dóor muus waaye am na xale yoo xamante ni ni fu ñu gis muus walla xaj rek dóor te damay waxtaan ak sama mbokki waaraate ketu charia yi parce que jàng nañu téere yi waaye ñu ci am sens bu pratique barewul dama leen di wax ne boo jàngee ci charia yàlla xaraamal na lekku lekku mbaam xeetu mbaam yépp yàlla xaramal na ko et pourtant taxul mu ne nañu rey mbaam yi fekk moo leen bind waaw ma tax xale soo bëggee tàmbali yar ci moom dal-dal boobu boobu cay toll xereñ gi ñu bëgg mu am ko danga koy pousser ci kii bu gisee ganaar sawar wut dugub wis ko ci kanamam bu ñuy daggal wutal xar yi lekk mu jàpp ci mburu yu wow ya di dagg di ca def parce que man loolu dama daan assister sama waajur bu jigéen mu di ko def te comme doomam yi man rek la ci yaral boppam dama ci daan jàpp diggante mburu yu wow yee ya ca des ñu di ko defar bu ngoonee bu ñu soqee ba noppi la ca des nu bool def ci ndox balaa jur gi dugg ci ñu kii leen ñu defal leen ko jox leen ko ñu naan waaw gis nga xaal boobu moo ëpp doole ci xale ñu bàyyi ko ba bu gisee muus walla mu gis xaj demee ni jël doj rek dóor moo ci des parce que ak nit ci plus tard yooyu dafay ciy joué ci et beneen bi xaw metti itam bu dee ci réew mi mel ni Sénégal bu njëkk daara yi ñoo daan dabaatal yu bari moo tax ku masaan a am njaboot mënoo ko yar sa këru bopp yóbbu ko ci sëriñ daara ba moomu dimbalanteeg yow parce moo tax booba à l'époque sëriñ daara ku ku ku nu teral la loolu xam naa ci dara parce que sëriñu naaru gànnaar moo ma jàngal ah ah moo nu jàngal alquran metti na mais la mu doon def ci ñun tax na kilifa yu mag yi tabaarakallah ñaari yoon ci semaine bi dañu daan yëkkati lu tane di nu jox ñu di ko yóbbul bu nu tukkee way jur yi jigéen ñi seet la la nu jekku mën nu ko jox ñu jox na ko ñu di leen ko yóbbul e eh, booba sëñ daara tabaarakallah am nu nu ko séddee waaye léegi daara yi kër sëriñ yi kër kilifa yi soo fa dematee léegi jàng bareetul léegi jàmbur yi yi kenn xamul ñooy sonne di xam-xamu daara mais ñi yaroo ci këru daara yi jàngatu la preuve mooy koo ci eh, koo ci ju ci julli ba juum du ko mën a defar te julli du caaxaan parce que liy mobilisé yépp pour julli gi mën a nekk yaa ngi koy xame ci booy tëj sa taaya yaa ngi koy xame ci booy tëj sa taaya julli du caaxaan moo tax soo ci jumee defaree ko ci biir julli gi lañu la digal waaye dog julli gi digaluñu la ko waaye tey bari na koy dem ci doomu daara yi bu jumee ci julli du xam nu mu koy defare parce que nañu ci daan sonne bu njëkk te am na façon buñ ci daan jamante dafa am solo ah am na façon yuñ ci daan jamante dafa daa am solo di la laaj ci ban condition lay lañ ngay toogee ah euh, euh, julli gi yëpp maanaam rakka yëpp ci condition yan ngay toogee rakka yëpp da koy toog ci julli gi ci ban condition c'est question que se posait entre nous ak kañ la maamum mën a yàq julli ilimaan ma ah, maamu mooy ki ñuy jiite ci ban condition ci julli la mën a yàqe eh, eh, jullik ilimaan est-ce yu mel noonu waaye léegi boo ko dee lijjanteeti ci daara yi ñu koy toppatoo bare boo demee ci këru daara yi itam yar bareetu ko soo fa demee lijjanti li ci mbedd mi moo leen gën a lijjanti li yàlla donnale daara ja moo tax bunt yi nu ko daan damaatele dafa mel ni dafa commencé di sakk ndànk-ndànk atax barkaati démb maa ngi dox ba jub zawiya Seydi El Hadj Malick radiallahu anhu ma seen ko moom xaaj ba du fàtt bi mu sol lu weex tuuti ma dogale ko ma ne ah borom itti la du ma ko déranger mais ma ciy waxtaan ak ku ma jege mu ni ma nag moom léegi zawiya ba la def barabam ma ne xale bi il a trouvé ses waxuma il a trouvé ses il a trouvé ses du benn repère ñépp a ko bokk ah kuy wut sa borom kuy wut sa borom xam nga li julli di jariñ ti wut yàlla kooku ñun ñëpp a ko bokk waaye kañ nga mëta doon ilimaan ak kañ nga ñàkk mëta doon ilimaan kooku ku xamul yi markam mënu ko moo tax dama dégg ñu ni kilifa yu tedd yi dañu daje seen jataay yooyu ñu daan def ba waxtu julli jot bu doon waxtu wu nu biral nuy war maalante kii naan sa moroom yaay jiite ki ci des ni ko déedéet yaay jiite njëkkite am na kilifa aada bu nekk ci seen biir naka la ko ñaari kilifa joxante ku ne di delloo sa morom mu ne moom na dem kilifa aada bi jiite dem taxaw ci kanam kilifa yeneen ci ginnaaw ñu laqaamal ko mu kabar mënu la jàng fatiya parce que loolu du rolam moo tax lu ñu mënti sédd sédd sédd xamal fi ngay ligne bi nga naan ligne bi duma ko jéggi xam nga benn shérif ñëw na Tiwaawan aljumma jot ñu ni gan la shérif la sotu yonent bi sallallahu alayhi wa la rek ñu ni ko na jiite juma eh delluwul gannaaw tuuti xalaat li ko charia may lu ko charia mayul e mu jàpp rek ñu li xamal ko mu kabbar ba commencé jàng alquran Serigne Babacar si dégg baat bi xam ni du ki daan jiite bu moom moo ji moom bu jiitewul du Serigne Moussa mais naka la dégg baat bi rek mu mu laajte kan mooy jiite ñu ni ko shérif bi mu ni dem leen ni nit ñi nañu dog julli gi xam nga s'il avait mark ak lu ñu ko sant sant xam na ne loolu charia mayu ko ko du ko def ñu dog julli gi sëñ Babacar Si ni ko ah, yow li nga def ku la ko sant mënu ko nit ñi mënu ko mais yow bu la nit ñi sante loolu xam nga li la charia may ak li la charia mayul waaw pour wax la e lu am solo la moo tax e eh, tabaarakallah réew mi lu mat a sant yàllaa ngi fii mooy nit mën na occuper responsabilité bu nekk ci dundam doon kilifa ci administration doon kat am na fibre bu caché wu derrière tout mooy mujj tiim yëpp moo tax boobu buñ gisee nu bëggunu góorgóorlu yenn yi bañ ñu rëcc fiiru boobu la ñuy bëgg rek yàlla di ko fi gën di saxal sama benn baay wax na ma lu xaw jafe nee na ma dañu ma tàgge soxna su baax ci réew mi ma xam cëram nee na fi ñu ma ko tàggeek fa may demee ca rob ba nee jàngal naa ko fu fukki junne salaatul fàtte ah? ma ko loolu yombul loolu yombul waaye rek ci yàlla cëralee réew mi la e nañ ci bàyyi xel lu ñu mën te loolu yàlla sagal la ci kilifa yi daaw nu ko jéggi te daaw nu bàyyi itam ñu di ko jéggi ñu ngi ci am sunu benn maamu séeréer ca kër ga la nekkoon mais bi mu demee ba bëgg a jël werd wax ko cheikhul xalifa sëñ Babacar def na ko yamal ci julli rek parce que xam na ne xaalam ak fi ruuxam toll mayu ko mu mën a jëfandikoo salaatul fatiha yi te xoolal léegi ku ñëw ni damay jël werd rek ñu jox la ay werd bala nu ko jox nit ki nga xam fu xaalam toll parce que yi ci Cheikh wax it dafa yéeme màndarga bi ñu ko laajee bokk na ci yan ci top tariqa luñ ci nit di yëg yokko mu ni e bari na waaye moo wax leen ci benn mooy salaatul fatih ku ko jàng ak te yëgoo lu dolli ko ci yow bay boo nga bàyyi ko te ngeen baal ma waruma ko waaye léeg-léeg nga gis ku jàng salaatul fatih juróom fukki at ngay wut ko salaatul fatih jariñ doo ko gis tax euh, lu ne xamal fi ci sa man-man ak fi ci sa gis-gis ak fi ci sa kattan yi am boo ko defee rek daa noppal sa bopp waaw e ngeen baal nu nu nuyu kilifa yi baax yi fi teew yëpp di nuyu sunu parrain El Hadj Abdoulaye Dieye xale yi nee nañu mu ngi leen di jàppale mais wax na dëgg kenn ku sa gannaaw sa loxo jot sa gannaaw yépp yàlla mayewu ko cheikhul xalifa radiallahu anhu dafa daan wax ni góor ku def lu sa fukki nawle mënul da ñu la jàppale rek waaye kenn rek songu lépp daan ko mu yàlla mayu ko kenn su ko defee ñu sant ko sargal ko moom lañu sedd bés bi tabarakallah kilifa yi baax yi fi ñëw yëpp a ko moom waaye nag loolu la yàlla dogal e mu ngi leen di jàppale yàlla yàlla taxawu ko moom itam te jàppale ko ah te ñu ñaan sunu kilifa bopp yi nu di ko ñaanal di ko digal parce que réew mi itam yombul dama ko mas a laaj Serigne Cheikh anhu ne ko lu tax Sénégal lu am njalbeen yomb na fi waaye lu am mujj daf fi jafe Sénégal lu tàmbale lañu man waaye lu yeggale daf fi jafe ngeen baal ma politiquement rek politique ci wàllu politique kenn rek la jàpp ni la postérité la récompense muy le président Senghor Senghor na ko yàlla sagale woon ci ci cër ba muy tund bi mu demee itam dafa mel ni sag boobu yàlla daf ko saxal et pourtant bi mu démissionné doon nañ ko proposer mu dugg dans le business du pétrole man xam naa buur bi ko doon pousser pour mu def ko xam naa itam ki mu ko bëggoon a booleel ci pays yi amee pétrole ci réewu arab yi pour nu jàppale ko mais xam nga ku ko ci génne mais François Mitterrand moo ko ci génne Mitterrand moo ko wax ni ko mais business du la may lu la sa cër politique mayul business du la may lu la sa xam-xam mayul nu ko doon nga chef d'état ba xëy bàyyil sa bopp loolu bu ñuy wër ci àdduna bi ñu ko fi def mën ko lim mën ko lem ba barewul mënu ko tël la ñu la mën a reproché barewul mënu ko bi ci des li nga bindee li nga bind ci téere lañ la ca warlul yëpp teral na la teral na say sët hmm? mënu ko bi ci des eh, eh, académicien nga mënu ko cër bañ la ca may ak teraanga ya ñu la cay jox mënu ko tabaarakallah xajul ci yow rek mu ni ko te yàlla suturaal na la ci France nga am fi loo xam ni bari na ko ay maamaatam juddoo France te amu ko fi mu ni ko parce que bu ñu demee Normandie yéena nga fa sa famille mu nga fa am man waax mun ko à Paris yéena ngi fi am appartement mun ko nag loolu bu ko yàq ngir li coowal business su pétrole bi mais François Mitterrand moo ko ci génne ah, pour wax la politique sagal na ko ba muy dund politique sagal na ko gannaaw mais bu ko génnee mënuma la wax beneen dirigeant politique ki réew mi ba ma jàpp ne loolu am na ko fi wante nañu leen di ñaanal yàlla may leen kattan ci njalbeen ba may leen kattan ca mujj ka que lu am mujj rek moo am solo la ca des eh, boo ko toppee itam yàlla ma yàlla baal benn baatu wolof xalam demoon na bay neex buum nga dog waaw ah, bu ñu ci jëlul ay garde ay mesure ku mun na ñetti yoon rek ñu jékki ñu ne ah, moom kat dafa dog loolu yàlla nañ ci yàlla musal waaw ah, tax sunu boroom subhanahu wa taala bi ñu ko laajee ni ko secousse tremblement de terre yi am ñu naan mi bakkan dee na ci ngelaw yi fudd di daaneel yi kër di rey ay nit ndox yi fudd di mabbi kër di rey nit nu mu toll ci yow mu ne am na lu ko gën a triste ci man ñu ne ko lan mu ne xalam demoon na bay neex ah, buum nga dog te mooy kii am pas-pas ma di ko séentu di xaar mu yegg si waaw ah, ki am pas-pas ma di ko séentu di xaar mu yegg si di ko séenti waaye ba laata mu yegg si rek ma yëg ne affaire ba fel nañ ko waaw ah, ma tax ku ne rek da ngay lu la yàlla di suturaale mucc ka mucc ka ëpp njariñ la nga njal benoo moo tax ñoom ñii dañ leen koy ñaanal waaye sunu xel dal na ci ndax def ko séq ku nu ku nu naw ku nu wormal mu di Serigne Babacar Mm, duma tagg nit ci mbooloo ku ma yàlla doyloo sa cër wëllëre laa koy def lam man ci ko yéene ak ci ñaan di ko def itam ma def loolu la yàlla dogal sama diggante ak moom nu ngi koy doxal te ma dem te ñëw bi bariwul te moom xam na fa ma ko teg xam na ko <coughs> eh ko ko sédde moom ak ñi mu ko bokkal ñëpp di def taxawaay bi ah sant kilifa yi fi ñëw yëpp ñoom defe naa Ibrahima Wade tabarakallah ak Maguette Wade xam nañ leen ñoom ñëpp wallaay depuis AGETIP ak yëpp ca taxawaay yaag yépp nu dañu ni di suivre seen seen seen taxawaay yàlla yàlla gën leen jàppale yàlla gën ubbi te yàlla gën leen defal seen yéene. e tabaarakallah thème bi moom yëfi jàmbur la damay korfati rek bàyyi ñu ko moom ñu bu ñu jógee ñoom ñu mottalil nu xam nga thème mu éducation e, Sénégal boo ko fi tuddee ñu ni defe ne xale moo ko moom parce que ñëwaguma sax ci définition bi éduquer mooy lan ñi nee nañ yar la ñi nee nañ tàggat la ñi nee nañ leneen la mais est-ce noonu la bindoo ba mu jeex waaye gis nga Sénégal baatu yar tax na boo ne yar éducation rek nga xale bu ndaw bi la mais man jàpp naa ni Sénégal tey ku ko bëgg a defar bala ngaa tàmbali parce que xale kenn du ko yar xale ay teggin dañ koy jàngal teggin rek parce que ku amagul sens su mën a def jugement kenn mënu la yar ay buntu tekkin la ñuy mën di ko teg sa loxo rek nga xam noo ca jëfandikoo mais sunu yar mag ñi la yar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla yabal mais ci dignitaire Quraysh yi la ko yabal. Hmm? yonent bi sallallahu alayhi wa li muy màgg diggante mbindeef mais yàlla daf ko jub daf tegaat ci yoon wa mu bëgg gis nga dama ci dégg benn wax xam nga nag ku la ko yàlla defal dama dégg Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si mu firi ñaari aaya te man dama mas jàpp ni aaya yi jëkkate benn benn la amruhum shura baynahum ak wa shawiruhum fil amr ah mu ne amruhum shura baynahum mooy diisoo mooy jullit yi li way doxal seen penc nanu koy diisoo mu ni waaye wa shawiruhum fil amru mooy deeyoo te nee na aljahiliye xamuñu woon diisoo deeyoo lañu ñu xamoon loolu moo tax mu wax ni Muaz ibnu Jabal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko ko daan reproché di ko wax ni ko am nga cër waaye amuloo yar ah ak ni Muaaz toll ci ci sira yonent bi di ko ko sikke naan ko Muaaz am nga cër waaye amuloo yar parce que euh, Muaaz dafa amoon habitude bu ñu toogoo ci mbooloo muy muy jël noppam di déeyoo di déey du woote di wax yonent bi ne ko jaaxe jaaxe jaahiliya ñoo ko fi bàyyi ba léegi mu ne ko waaye du teggin ay nit daje ngay déeyoo mun ko am nga cër waaye amuloo yar wax na dëgg xanaa xamul ni cër du maye yar jikko ak xàmme mooy maye yar mais cër du maye yar xoolal Sénégal bari na ku ñu fi tudd naan kilifa la lii la lii la mu topp cër bu bu mujj doon li ñuy wax dofu teraanga na ma yàlla baal baat bi mu mujj nekk dofu teranga parce que dafa jiital cër bi te xamul ni cër il faut ko mu am lu ko ëmb il faut que jikkoo ëmb ko il faut ko xàmmee ëmb ko il faut que dal ëmb ko waaw moo tax man dama koy wax bu kilifa yi toogee léegi man duma ma ñeme parce que nit ñaa ngi yëkkati seen téléphone yi di wax rek waaw waaw ku yaa ngay déeyu nga ku ne yaa ngay woo nga bëgg woo te jataayu kilifa laajul loolu moo tax Serigne Aline Gueye mas na toog di waxtaan ak Maw fekke jataayu Maodo ak góor gi Ahmad Cissé Diakha bu Ndar góor gi Ahmed Diakha Cissé ci kilifa ndar yi la bokk muy waxtaan ak Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu Serigne Alioune Gueye fekke jataay bi mais comme dafa amoon curiosité intellectuelle mu jékki rek dawal ci kàddoom mais góor gi Ahmed Diakha Cissé ni ko ni ko yow sa teggin des na ak ni signal yi toll ci Maodo mënu ko sa teggin des na parce que ñaari kilifa du ñuy waxtaan njaboot amu ca wàll. ndekete Maodo ngi muñ ci suuf rek <laughs> ma ngi muñ ci suuf ba tax ba ga demee mu ni siriñaal yi bari na luñ leen di nangul fii bu doon faneen la rek yot dal seen kaw pour wax la ki kilifa nekk ak moom dafa am lu mu laaj waaw ah waaye léegi ah ku kilifa yi wax ku ne jël kaddu ku ne bëgg ko dogale ah te laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi ah mu nga ca ah, jaadul yonent bi di wax ngeen di wax ci kanamam di yëkkati seen baat léegi fu kilifa yi waxe ku ne tëre yëkkati kaddam mel ni lépp yow yaa fekke yaa def yaa man loo xamante ne ni wattu ko moo gën moo tax ah, may wax ni réew mi ku ko bëgg a defar faw nga tàmbalewaat ci mag ñi de ah dafa am ñaar yu feeñ te réew mu mas feeñ defar ko dafa jafe mooy daraja def fi am doole muy prestige sénégalais wuteetuñu dara effort ci prestige rek di def yitte di di jéem ba yàlla may la sénégalo gëmu ko di jaay dara daraja ba am ko la jàpp ne moo ko ko war a bi ci des itam xel mu gàtt dafa yaatu ci réew mi watax dama dem Abidjan benn mbokk di ma tooñ ni ma dégg naa les sénégalais sont intelligents man ko à court terme woy <laughs> les sénégalais sont intelligents man ko à court terme wéy problème mu ñetti fan la ñu mën a waaye solution bu sax sénégalais amul patience boobu ah sénégalais solution ñetti fan moom moo ci mën ñëpp waaye la solution bay juraat du la ko fajal manu ko te kilifa dafay amee gis-gis bu sori gis nga général de Gaulle moo fexe ba France gagné deuxième guerre mondiale bi mais lu tax bi guerre bi jeexee mu démissionné dem parce que booba xam na ni le front populaire envahir na classe sociale yëpp en France moom xam na ni fu mu fi imposer projet politique am terrain bi mayu ko ko il a préféré se retirer. sacrifier le court terme pour mieux s'approprier le moyen ou le long terme kooku du du man manu sénégalais moo tax suñu projet politique yi agriculture yëpp gis nga ko ah xoolal tey demal Maroc hmm? ils sont en train d'exporter seen seen agriculture ils sont en train d'exporter seen artisanat ah ñu ngi exporter seen seen modèle bancaire ñu ngi exporter seen modem modèle scolaire universitaire seen modèle éducatif marocain yi ñu ngi koy proposer faneen ah te ñoo jëlandoo indépendance xëy na ressources ya ñoo amoon ñoom ba mu jeex ñun amuñu ko ba mu jeex mais amoon nañu base quand même ñun suñu agriculture ba léegi mënuñu wax ban forme lañ ko bëgg a jox qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture sénégalaise xamuñu ko. Hmm? te la wolof lépp bala ngaa laax jaay laax dundee ah il est question d'autosuffisance loolu waroon nañ ko léeg-léeg au lendemain de l'indépendance mais ba bisu tey tey am mbay mu may mën a dundal waa réew mi mënuñu ko am ah, loolu problème la sunu modèle éducatif depuis pratiquement soixante-huit mu ngi nekk en crise école yi étudiants yi syndicats yi état bi wëlbatiku wëlbatiku wëlbatiku solution amagu ci eh, moo tax éducation dafa nekk lu mat bàyyi xel parce que gis nga su ñëwul mën nga jàng sax ngaa jàng ma sori mais su ci yàlla deful sutura délinquant intellectuel ngay doon parce que ku jàng xam te yaroonu la sa xam-xam bomb bu nu bu ubbi la demal en France ñan ñooy ñi bindkat yi fa gën a célèbre bokk na ci Baudelaire ah ah bokk na ci Rimbaud ah bokk na ci Verlaine mais am na leen na ci seen plume kenn bëggul sa njaboot jàng ko parce que kersa amu ci te penc munu bëgg a tabax te lañuy jàngal nit ñi di leen ko xamal kersa amu ci àdduna bu tukki la hmm? mais léegi tey téere buñ ni la best seller la maanaam ci yi ñu gën a jaay la boo ko jàngee xam ni borom ba mu koy bindee saxal ko taxul hmm? te da nga jàng ci littérature arabe sax ñu lay wax ku mel ne Imr Imrul Qays walla ni la amoon na yaru mbedd mais quelque part dese woon na ci parce que bi ñu ko fekkee ci bistro ba wax ko ni rey nañu sa baay hmm? bañ fekkee ci bistro bi ni ko rey nañu sa baay lan la wax al yawma xamr والأمر غدا إن شاء الله mais aujourd'hui c'est le jour du vin <laughs> kenn du ma ko xañ forme noblesse la ah al-yawma khamr aujourd'hui c'est le jour du vin et demain ce sera le jour du commandement mu ni suba képp ku ma xam ne impliqué wu nga ni ci li faat sama baay danaa ko jëflanteeg yow c'est une forme de noblesse moo tax keroog dafa yeggale di naan sàngaram ba doyal ñibbi këram waaye ci ëllëg sa kaalaam la jël takk ko ci ndiggam jël jaaseem képp ku nga xam ni impliqué wu nga ci complot bu rey baayam keroog takkal la pexe loolu sax xaw na tane donte sax li muy wax di ko bindee kenn bëgg ko nàmpaloo sa moo tax nit ki quel que soit jàngal bi ñu ko jàngale xam-xam bi ñu ko wutal ba fekkul ñu yar ko rek plumam dafay mujj sax buñ ci bëreewul ah, ku yàlla sutural lu sax ci délinquance lay mujj parce que man dinaay faral di liir seen mbind mais ki ma ci gën a di seet moo di Victor Hugo c'était un homme libre mais amoon na jikko amoon na ay valeurs yu mu doon jéem a eh, ñaan nu saxal ko wax tax keroog bi mu dee dafa wax ni bu ko kenn ñaanal ci église waaye na ko ku xol sa xol sell nag man nga ko ñaanal testament am loolu la ca bind bu kenn dem ci église yi di ko ñaanal waaye ku wóolu sa xol lu sell nag nee na sa diggante sa borom man nga ko ñaanal parce que na daaw ma dem ci église waaye nag gëmoon naa yàlla waaw ah, pour wax la ah, dëgg la il a une plume critique kooku ci ci ci ci ne ni jàngam dunde la ni expérience am jaare la mayoon na ko ko waaye nag am na valeur yu mu doon défendre waaye boo ko génnee am na ci bindkat yu nga xamante ne lañuy wax kenn ñaanul seet sa doom yëg ko wala mu mu mu mu ko e eh, bu mel ni de définition Euh, euh, euh, éduquer ñu ni yi mooy yar mën nañ ko nangu te mooy dimbale nit ki ba mu am melokaan buy tax nekkam ci pénc mi du indi fitna du indi lor dana ko may mu sax ci ay jikko xëy na définition boobu mën nañ ko nangu mais tàggat damay faral di dégg ñu di ko ah, wooye yar mais taxul ma ñeme ko lool ndax tàggat suñu ko defee nit mën na am melokaan wu nga xamante ne du bokk ak ba ko yàlla sant wala du bokk ak melokaan wu nga xamante ni nii dana sàmmook dignité xam nga nit ki mën nañ ko yar mu am melokaan wu nga xam wala ñu tàggat ko mu am melokaan wu nga xamante ni nii mais eh, melokaan woo du sàmmoonteeg dignité du mel melowu tax yàlla yàlla mën konte ni kii ci ñi mën saxal yu penc mi ci la bokk parce que dafay dellu ci li ñuy wax conditionnement dafay dellu ci li ñuy wax dressage te nag dafa jur ñaari yàqu-yàqu ci xew-xew yi àdduna ba ñett bu njëkk bi mooy li ñuy wax pensée unique xam nga bu ñu la tàggatee mën nga dema dem ba sa xel du nangu lu dul ne benn xalaat rek mooy cëriñ tey posé wu na ci niveau lislaam débat bi lan la am na ñu wax ni l'islam li mu digle soxlawul ñu ci joxe point de vue ci ñaari ponk rek la ñu koy attee bayna al xalaali wal xaraam li yàlla ni sañ nañu ko def am yiw ak li nga xam ni tere na nañu ko bu nu ko defee bàkkaar la nee nañu loolu soxlawul interprétation mais loolu bu yàggee pensée unique lay indi te ki ko indi ci ci ci ci ci ci école l'islam yi ci kilifa la wormaal nañ ko ndax ci ñi ñuy wax ni ci ñi école am ci ñi yàlla nangu seen école ñu wéyal ko ci la bokk mu di imam Hanbal hmm? parce que njër yi bari na mais ñeenti école la yonent bi wax ni eh, ku ci tënku génnuloo alquran génnuloo sunna mu di imaam Shafii imaam Malik imaam Hanafi ak imaam Hanbal mais imaam Hanbal moo moo armé tey ñi ñuy wax rigoriste yi ñi bëgg indi la pensée unique ci l'islam te naka la ko indee moom dafa wax ni pencub l'islam bu amul kilifa nee na gis na ni danger boobu moo gën a bon pencum lislaam ba nga xam ni kilifa ga ko amee loxoom dafa diis mais ma ni ko mais yàlla ba mu nuy royloo alquran la ñu royloo ah ci biir alquran yonent bi incarné vertu yi yàlla doon digle mu royloo nu yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax yonent bi bi mu dee bi mu faatoo xam nga kilifteef amul yaa yaa une rupture de pouvoir dëgg la wala du dëgg ah moo tax kenn taxawul jiite jullee ko ñu topp ci sa gannaaw parce que pouvoir amul mais désordre itam amul parce que booba xam nañ ni yonent bi li mu doon doxal mooy li ko yàlla digal ci mu ngi ci alquran al alquran a ngi seen kanam te lu ne na ko daan defe itam bu fi jógee gannaawam référence mu ngi ci seen kanam moo tax mag ñi dañoo rang ku ne dem ñaanal ko dem yonent bi jullit bu dëkk Medina keroog jullee nga ko mag mu ne jullee nga ko xale bu ne jullee nga ko jigéen bu ne jullee nga ko parce que autorité amul waaye taxul désordre am moo tax eh, eh, eh, imam Hanbal wormaal nañ ko mais loolu mu indi bu ñu ko toppee dafay sabab li indi li ñuy wax la pensée unique tey ñib indi fitna ci péncu lislaam yi ko ci àdduna bi ci xalaat yooyu la ñu bëgg a sukkandiku tey koo ci waxal ñaari argument la am xalaal xaraam loo wax mu ne xalaal loo wax mu wala nga wax nu yajuuz laa yajuuz c'est permis c'est pas permis ah tey fi l'islam bi yëpp ci boobu boobu boobu anam lañu ko bëgg a indi mais loolu bu fekkee nu bàyyi nit ñi ñu tàggal leen ci yenn façon jàpp ni benn xalaat boobu rek mooy am mais dafay mujjee di fitna boobu ñuy tuddee idéologie de la terreur moo tax man côté tàggat ñemewuma ko parce que dafay. dafay indi xeetu tëralin yu nga xam ni dafay yee fitna dafay saxal fitna eh, wala boog mu indi li ñuy wax assimilation assimilation mooy dem ba jarale ci jikko yoo xam ni du sa jikko cosaan du sàmmonteeg sa personnalité cosaan eh, dem na ba ci aspect bu formel bu nga xam ne man tey ba ma nekkoon ci kilifa ci réew mi danañ ko revoir mooy question bi ma mës a dégg Serigne Cheikh laaj ko un magistrat ni ko est-ce que pour plaider justement vous avez besoin de mettre vos robes noires est-ce que taxaw ci ci ci euh, tribunal di àtte est-ce que saxal dëgg lu est-ce que lu lu lu nécessaire le ngeen sol robe yu ñuul yi takk fulaar gu weex gi takk tagal mbaxana yi est-ce que loolu lu nécessaire la pour saxal justice à la rigueur ngeen baal ma parfois intimidation la sax <laughs> c'est de l'intimidation parce que ñu ngi lay bëgg la kii lay atte doo moom du yow te mën naa te juum dëgg la wala du dëgg mën na atte juum moo tax kilifa gu déggee day dimbale njaboot de dañuy eh, toog di waxtaan ak moom mu ne xanaa xamoo ne ku la gënu la jub sax sañu laa atte ci charia wax na dëgg ku la gënu jub sañu laa ci charia te bari na ku nekk ci tribunal di atte te ka ngay atte la mu def ci sa dund def nga junni yoon lu ko gën a ay hmm? moo tax man parfois damay jàpp ni une forme d'intimidation la rek Ah, new mën nañ ko fi jële waaye itam jaadu na ñiy doxal yu mel noonu réfléchir ci porté wu euh, euh, euh, façon yooyu nu nu koy defee di nga waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa ba ñu demee ba am ñu naan bon léegi nañ leen wutal kaala yu weex ñu di ko takk ci seen bopp ndax ku leen <laughs> ku leen gis xam ni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan bokk mais am mag mu leen wax ne bu ngeen ko defee daanu jël bu rëy ah maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum ah walakin rasulallah xatama nabiyin ah yonent bi ko may sol kaala gu werte mayu ko ko di am jikko yu tey yu rafet ba yàlla doyloo ko def ko mu di sangu jikko yi di sangu yonent yi mënu ko loolu moo ko ko may kon nag yéen itam bu ngeen bëggee wane ni dellu ngeen ci moom da ko seen jikkook seen melokaan wane waaye bu ko kaala gu wert wane ah loolu wax la eh, eh, eh, façon yu yu mat a bàyyi xel la moo tax définition bu dellu ci yar xëy na sax man xaw naa ko mën a accepter waaye bi tellu ci tàggat nag dama ko ñemewul lool eh, bi ci des itam éducation dafa dellu ci li noo wax nee nañu àq la ci nit ndax yi ñu njëkk a définir ci yelleefi doomu aadama <laughs> waaw e moom day li ma fi waxoon ci njalbeen bi bisu koor dafa xat ñëpp bokk nu fu nu jóge am na xam dañoo am seeni responsabilité ci seen i kër waa tax ku toog ba jàpp ni jóg dafa war rek kooku nangu nañ ko ndax yegg bi nga yegg si bàyyi xel sa diggante kilifa gi ak ñi mu am rek doy na kon nag ñu sant ñëpp ci turu sëriñ Babacar du ñàkk moom xëy na buy jeexal rek tàngee dina fexe ba ngeen mën di loo teeg muy dëkkuwaay bu ngeen di génn itam lu ngeen rafle rafle dinaa fexe ba ngeen mën a génn ngeen am koddaay wala muuraay ci sutura xam nga à l'origine ñeent yooyu moo doonoon les droits fondamentaux mais gannaaw ga dem nañ ba xam ni doomu aadama tedd nga am ak fu mu jëm bu ñu ko yamalee foofu àdduna tukki moo tax ñu mujj dugal le droit à l'éducation ah dugal le droit à la santé ah dugal dem ba dugal le droit d'accès à l'énergie dem ba dugal droit d'accès aux aux aux aux protéines végétales yooyu yëpp mujj nañ ko dugal ci ci àq yeeg yelleefu doomu aadama ah, moo tax eh, am na réew yoo xam tey boo fa demee am na li mu at yoo xam fekk yegguloo fa dañu lay utu sañ-sañu nga jàng il faut que nga jàng il faut que nga dugg ci système éducatif bi amee réew ma waaw ah, pour wax la tabaarakallah et eh, dafay lu ama ama am solo et eh, bu génnee construit loolu li tax nu boole ko ci yelleef dafa am benn mbir bu nga xam ñëpp ci lañu daje xam-xam yu jóge asamaan ak yi ñu tërale ci cadre euh, philosophique yi ñu tërale ci cadre politique ak yi ñu tërale ci cadre aqu ci wàllu koom-koom ak dañu wax ni lan na leen boole mooy dignité doomu aadama sàkku gi ñu sàkku nu yar nit di ko wutal jikko di ko wutal melo bëgg sàmmonteeg dignité doomu aadama moom moo tax moo tax ñu wax ni yar boobu bu ñu la koy defal eh, xëy na ci ñetti anam rek lañu lay mën a dimbale bu njëkk bi mooy wàllu jikko yi bu ñaareel bi wàllu teggin yi bu ñetteel bi wàllu xëy na li dellu ci xereñ xereñ maanaam savoir faire dañu wax ne bu ñu yar nit ñetti jumtuwaay yooyu la ñu jikko pour defar ko boo gisee ñu jiital jikko yi nag am jikko yi tabaarakallah la nooy ñooy fees doomu aadama mën ko jox yar bi ñu bëgg mu am ko mais dañu wax ne nag jikko yi li muy bare bare dafa am jikko yu nga xam moo leen yennu te ba ëpp doole mooy li ñuy wax ngëm parce que euh, la foi mooy mooy régir diggante ki yàlla ki bind ak ki ñu bind yàlla bi nu ko waxee ban jumtuwaay yow mi bind moom la ñu ki ñu bind di doxante yow daf ni ngëm e ñu ni ko lu tax euh, ñu ni ñu ni lu tax ñuy gëm yàlla argument ya nu joxe bare na waaye alladi xalaqa rek xalaq waaw iqra ca soor ya ca des alladi xalaq parce que bu nu ko talee rek parce que dafa bind waaw moo tax saydatuna Fatima radiallahu anha comme amul ku koy jàppale ci coono kër moo daan defal boppam liggéey yëpp moo tax dafa daan liggéey ba loxo yi yàqu ndeysaan mas na ñëw nag bés ci ci set si sang bi sang bi gis loxo yi ni mu bari ay crevasses ak bari der yu deeg wéy pratiquement complètement gonflé ndeysaan mu di ko xoolte ci loxo bi ne ko xanaa liggéey bu bari moo ko def man ko waaw man ko ay sante ko yàlla man ko ndax ñi ñi dundul tawatunu man ko ñi dundul tawatunu man ko tawat rek da jot ci dund man ko moo tax soo liggéeyatee liggéey ba pare sa loxo di metti nga na nga def subhanallah fanweer ak ñett def ñett def allahu akbar fanweer ak ñett nga gërëme ko yàlla moom mi la may dund ba nga mën di liggéey ba sa loxo di metti mënu ko ndax ñi du jundul tawatunu e su ko defee loolu ci jikko yi yennu di sàmm yaru nit ci la bokk ak jikko ja ñuy wax ak xeetu muñ yi ñuy wax xeetu muñ ak sabr waaw yooyu yëpp ñoo indi ko xeetu tolérance xeetu di sonn ci xam wax nañ ni jikko yooyu boo ko seetee moo moo boot jikko yi ci des waaye nee nañu tam jikko yi bu ñu lay laaj di la ñaan nga di ko rango dañu bëgg mu façonné sa caractère parce que wut jikko te te kenn mënu ko dàkk ci sa caractère àdduna bu tukki la moo tax gis nga booy def euh, ilmu tarbiya euh, am na baat yu ñu la daan dimbalee ci daara ja euh, boo ko toppee rek danaa melu yàlla feeñal ci yow xawma asabru wal imaanu in subba fa fiihi katibatun xarsaaw waaw asabr wal iman dañu wax ne ñaari jikko yi di muñ ak ngëm ku ko yàlla sol ci yow ki lay suuru lu mu war njëkk a xalaat mooy mooy mooy ni ab énormité maanaam lu rëy lu kenn xamul na kattan ga toll loolu lay suuru waaw asabru wal iman in subba fa fiihi katibatun qarsaahu ah waaw di nu ñu la koy dimbalee ak ak ba ca desati ah salaamaaleykum waaw kay taal jërëjëf jërëjëf ak xawma xawma xayaatun bila ilmin xayaatun damima waaw xayaatun bila ilmin xayaatun damima wa ilmun bila jahin kalaamu mudayacu ah di la wax ne la dund ku ko nar def ba mu jeex te naroo ko transformer école dund ga sànku na dund itam boo ko defee école te école bu munul jur ci yow caractère bu sax nee nañu njàng ma sànku na waaw su ko defee li ñuy bëgg nag sa jikko sa melokaan sa euh, jikko yi ngay incarné jur ci yow caractère bu ñu xamee ni ci ñi mën a sàmm euh, yëkkatiku penc mi ci nga bokk waa tax gis nga ndeysaan imam Busiri waa euh, tax bu ma sañoon su suñu mbokku daara yi na ngeen dëgg jàngalewaat littérature classique boobu te gën ko dégg gis nga imaam eh, bi mu gisee xaare yi ñi doon xaare ci ci turu yonent seen turu borom te di ko defe ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa mu gis leen ñuy yéeg ci fas yoo xam ne amul teg xam nga jullit yi àndoon ak yonent bi seen fas yi amul woon teg noonu lañ ci toogee ak rudeesu poilu fas di songook ñu nga xamante ni ni ñoo leen gën a ñëw ngannaay ba pare toog ci fas yu am teg mu ni waaye li ci yéeme boroom tànk yu wow yu ñooy mujj daan boroom euh, fasu teg yi waaw ah, moo tax mu indi ko ca bayti ba ka annahum fi duhuril xayli lakturuban min shiddati alxazmi la min shiddati alxuzumi ni pourtant fas yooyu ñu doon toog te amul teg la leen fa téye du woon tànk yu dëgër seen pas-pas pas-pas yi yàlla nammoon ci seen tënn yi namm ko ci moo tax ñu résister waaw ah, moo tax ñuy bëgg réew bu ñuy bu bu réew may commencé di wut melo ñu fexe ba ba ngëm ak pas-pas nekk lu unir xeetu est bi ñuy def deuxième guerre mondiale allemand yi dañ ñu woon benn benn benn bëgg-bëgg rek la am fexe ba dugg biir Londres parce que Angleterre kenn mësu ko coloniser Angleterre kenn mësu ko coloniser Éthiopie kenn mësu ko coloniser Hitler nag ni loolu moom moo koy faj te ne fexe ba ci biir guerre bi ñu dugg Londres les anglais ci baatu Churchill ñu nu ko pas un seul soldat allemand du dugg biir Londres bombardé nañu seen avion yu bombardé nañu ba Londres doon dóom dañu mujj ni la reine mère sax pour mu dem pour mu làqoo ñu bañ bombar bomb yi lakk pale bi mu ni leen mais fii duma fi jóg les anglais yëpp bañ laa bañ damay taxaw fipp nu ñëpp ñoom reine Élisabeth bii fa nekk tey di buuru Angleterre mais ñoo nekkoon ci brancard yi di jël di jël malade di leen yóbbu ci fajukaay yi et ils ont juré ci benn kàddu ni benn soldat allemand du dugg Londres ba bésu tey soldat allemand duggul Londres te boobu supériorité armée allemand allemande kenn werante wu ko waaye nag am na doggu pas-pas bu nekk ci seen biir mais moo leen may ba ñu résister à ça moo tax gis nga loolu ku bëgg tabax réew walla nga bëgg a defar réew eh, valeur yooyu rek ci nga mën a commencer dimbalee nit ñi xamoo nekkul ci di ubbi loo téere nit ñi lii la yàlla wax déedéet na am lu teel a fees dënnu nit ñi su ko defee loolu. Eh, nañu ci bàyyi xel a ah, loolu itam bu bu ko dee liggéey ci penc itam war nañu dema dema dem nag ba ba ku amul jot ubbi téere di jàng yan jikko mooy jariñ yàlla façonné fa ay nit ci seen jom ak seen doguwaay ba léew ba ko roy boo xoolee ci ñoom gis ko man dégg naa ci nu nettali wax ni Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu am na kilifa diine bu mos toog ak moom ci réew mi wax ko ni ko bari na ko fi wattu lu bon te ragal yàlla taxul waaye bañ mu dugg ci sa nopp bu tedd bi rek moo tax hmm? parce que booba moom itam jikkoom yegg na fu nga xamante ni tabarakallah euh, euh, euh, waaye di roy rek boo ñëwee seet ko ci moom image bi yàlla mën na la ko won moo tax mas na toog toog ak ñaari ñaari mbokki naar dégg na kenn ki déy moroom mi ni ko xanaa kii dafa yenn lu diis ndax te kaaral baak yar baag te boppam gaag mu ne mu dee moroom mi ni ko xanaa kii dafa yenn lu diis moroom mi ni ko déedéet boroomam bi ko tiim te daraam ci ko lay bañ mu xamal ko dara waaw su ko defee e loolu boo jàngee ci alquran tegtal yooyu yëpp yàlla feeñal na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, tur ya mu ko jox yëpp di ko ko màndargale di ko ko màggale ci ndax ni jikkoom mate waaw ci diggante innaka la ala xuluqin azim waaw ak ya ca des ci diggante royu mënu ko boy roy yow royal Ibrahim waaye julli di ñoom bu ñu roy yow nañu la roy gis nga tegtal yooyu itam royukaay yooyu itam suñu bëggee yar di di di indi mu war a indi il faut que loolu itam ñu sàmmante ak moom et eh, léeg-léeg rupture di am ñu dem ba la kilifa toll njaboot du def effort pour jéem a yéeg jéem a amee melo kilifaam léegi nag ci àdduna bi rupture yooyu moo commencé di feeñ ata gis imam Ghazali waaye na ko ci bunt bu triste parce que moom itam dafa jéem ca ñañ ko boole loon lu ne façon bu ne mu indil leen ko mais il a senti ni rupture mu ngi am si ci diggante moom auteur bi ko yàlla teg ak ñi ñu ko booleel fi ñu toll wax ko ci bayt ba xazaltu lakum xazulan raqiqan walam achir li xazalti nasajan li xazliyati nasajan fa kasartu men di li waaw xazaltu lakum xazulan walam achir li xazliyati nasajan fa kasartu men waaw mu ne ëccal naa leen ëcc bu sew a sew a sew waaye gisuma ku ko ràbb na na ma damm sama ëccukaay waaw j'ai j'ai brisé mon gouvernail waaw ah, waaw waaw moom loolu la wax moom imaam bon pour wax la e espèce su nag rupture yooyu buy buy feeñ dafay jur li ñoo tuddee eh, l'émergence des contre-valeurs waaw ah, dafay jur l'émergence d'un contre-valeur mooy jikko yu safaan yi day commencer di lekk jikko yu kawe yi loolu am na walla amul mu ngi feeñ si ci adduna ci fépp ah xoolal tey ngeen baal ma dans ci façon bi ñu commencé di di ci bàyyi li ñuy wax mentalité populaire yi tey ku def jëy yi jure ba nit ñi di la lii loo ko mën da nga naan seytaane ma man rek kese ah tey ku def jëy lu mu rëy rëy rëy du ko seetaat ci lan moo ko ku ci war a yóbbe ba bane yoon du ko def mais bu ko ne waa sawaay lu la dal mu ne seytaane ma man rek te du tere bu ci bëggee dellu delluwaat ca hmm? waaw dañu nettali benn fee ci Tiwaawan nee nañu koor dafay jeex ba ñu dajale muurum koor bi teg ko ci balkon bi pour bëgg bu nu xëyee ñu séddale ko am ndongo daara bu xaw a tëxët te saay-saay parce que ngeen baal ba ndongo daara ña ca moo ëpp ña ca yiwee ah parce que man dama daan wax ni daara léegi jóge fa doon wëyu moo gën a yomb jóge fa doon wëliyu ah daara ji léegi jóge fa doon wëyu moo fa gën a yomb léegi jóge fa doon wëliyu ñu ñu teg euh, saaku dugub yi pour war a bu ñu xëyee séddale murum koor bi mu ni moom dugub ji def ci am soxla te def ci bëgg a sàkk li mu soxla yóbbu ko lu ko bëgg a def mu def ko mais comme nag bëggul nu gis ko te tubéy ji mu sol caaye ju réeréer mu dem wuti ay buum takk ko ci catu caaye bi ba mu dëgër mu dem jël potam tiim tiim saako bi di ubbi di sotti ci biir caaye ji ndeysaan bi mu sottee ba li mu ko wóor ne li mu bëgg na mu takkaat geño bi mais fi muy bëgg a deme rek ku tedd ki cheikhul xalifa ubbi bunt bi daal di ah waa Cheikh Dieng newul foofu Cheikh moo ko daan ci ñu ko daan doxal service la mu ne ah Cheikh Tidiane Dieng newul foofu mbokk mi ni ko xaaral ma seetal la ko mais bi mu jéggi nag tànk bi mu teqi dafa xaw a dëgër ba benn buum ba fecc ko ndax daf ko ràccantal dugub bi commencé di tuuru. sëñ Babacar ni ko ah boo mënoon a wut ndab nga def ko ci moo gën te ko boo paree nga dem sangu ndax dafa ànd ak xetax ko ah, mel ni soo mënoon a wut ndab def ko ci moo gën mun ko su soo paree nga dem sangu ndax dafay faral di ànd ak xetax rek tëj bunt bi dem mais mbokk ma nee na ba ma ca jógee ci sama dund ci laa gëj a defati musiba bu ma tey parce que bu doon ñun la ñu yedd ko ba àdduna yëpp daje fa su ko defee mu jur ci moom frustration bu cay dellu du tàggu kenn waaye boroom jikkoo ko dabaatal boroom maye ko dabaatal ku xam nu ñuy jubbantee moo ko daraatal nee na ci dundam ci la jóge def lu bon loo xam ne moo ko tay ah pour wax la laay léegi gis nga ko eh, nit ñi boo waxee rek ñu ni seytaane ma mënoon rek jaaree fa yëf yi de moo tax contre valeurs yi et eh, ñu ngi commencé di am si doole yoo ko ci wax mu ni seytaane moo ko sabab te ji nga Serigne Alioune Gueye moo tax ji nga réew mi yaa ñu mag ñu mën a dimbale njaboot a ngi fi sëñ damay kafa moom ni ko mais su la seytaane gane nooy def su la seytaane naa ko demande ñetti yëf rek ba xam mën na ko bu ko mënee rek mën na toog këram la mas ngeen dégg loolu kuñ ni bu la seytaane gane nooy def mu ni rek am na ñett yëf yu ma yitteel bu ko bu ci bàyyee xel kërama mooy na bàyyi sama sijaada na bañ a sama kurus na bañ a sama potu waa waaw na dëgg parce que ñett ku ci seytaane malalu lum la manal parce que sijaada moo dox sa digganteeg sa borom ah, bu ko seytaane wàccee lu mu la mënatee sa digganteeg sa borom kurus moo dox sa digganteeg sa wasila bu ko seytaan a wàccee lu mu mënatee sa digganteeg sa ñaan sa borom mënu ko potu ndox bi moo amee sa teeyug dund ak ndox moo amee teeyug dund bu ko fa waccee lu mu la mën a lati moo tax mënu ko ñett bu ko seytaane accepté bàyyi ko ne ko ne leen ko bilee le bienvenu pour wax la euh, ba ci notion seytaane sax c'est relatif mais seytaane est-ce que pouvoir bi ñu ko jox yëpp am na ko yàlla wax na ne wattu leen ko waaw kay Wade jërëjëf ah est que pou est que pouvoir yi ñu ko jox yëpp am na ko ah, parce que seytaane nee nañu fu mu wàcc rek dañ ko dañ koo fàkkal fu mu wàcc rek dañ koo fàkkal ah fu mu wàcc rek nit ko fàkkal waaye fu ñu ko fàkkalul du fa taxaw waaw tax sëñ Babacar Si radiyallahu anhu ba ko benn mag laagee ni ko seytaane ni mu mel mu ne ah defe naa danay faral di sol grand boubou bazin de ay faral di sol euh, euh, euh, mbaxana fas di sol dàll double talon di tuuro parfum di lekk ceebu doon di naan ndoxu simon bawal ah pour wan ni ni ñun li ñu ko jàppee mu ngi ci ñun bala ñu ko jàppee monstre bu am kattan lu ne nañu jàpp nii li muy ter d'abord ci suñuy jikko rek lay mën a sukkandiku pour def ko et eh, moo tax dinaa ciy wax nañ ci commencé di bàyyi xel te di ko fajee yitte te bañ di ko fajee spectacle parce mbiru seytaane buñ ko defee spectacle rek àdduna tukki c'est vrai li yàlla wax ci moom yëpp mu ngi ci moom parce que ku xëyit di yëg ci sa bopp lu la bëgg defloo safaan bu la yàlla ne seytaane so te wax la ni la melo yooyu lay am war nga ko gëm waaye itam am na loo mën a dimbalanteeg sa bopp ba xalaat ko sax doo ko def waxuma laak di ko may bunt bu muy defee liggéeyam ci sa côté et eh, su ko defee un peu sur l'éducation xëy na mën nañoo indi élément yooyu la ñu jóge ci rek ñëw ci li ñoo wax teggin ci ci cadre éducation parce que liñ leen doon wax yëpp jikko yu moo ko amee mais itam teggin yi ñu ngi fii teggin yi mooy lan mooy adab yi mooy les bonnes manières ay waxtaan ak kilifa mu ne ma xale boo koy yar tàmbaleel ci ñett dimbale ko ba mu xam ni muy waxe xam ni muy lekke xam ni muy solo man ma waaye surtout mu xam ni muy lekki waaw ah, man ma parce que les bonnes boo ko tàmbalewul ba ngay ndaw boo jëmee mag doo ko doo ko faj léeg-léeg nga nga toog kuñu ni ku nu warmal la mu dugg ci toilette ba génn yow dootoo mën a dugg ca toilette ba wala nga toog a kuñ ni warmal lañ ko mu tim ñam di lekk yow doo am courage yu bokk moom boolu ñam ba parce que da ngay xam ni tegginu ñam yaruyu ci boppam hmm? ndax la sama baay ba waxoon ci Tiwaawan ah dañu toog di añandoog Serigne Abdou Aziz Alamin yal na yàlla dolli leeram ndeysaan nuy añ mu jékki rek ku woon nag mu jékki ne waaw man li ma seetlu ndax seetlu ngeen ko ñu ne ko waaw mu ne man daal dama defe ni gannaaw sëriñ bi ñun ñëpp dañuy wara <laughs> gannaaw sëriñ bi ñun ñëpp dañuy wara <laughs> ndeysaan sunu baay bu reeru la woon de nit ñi ci bool bi yëpp ree taf seen gémmiñ ni ko waaw lu tax nga wax loolu mu ne ah man damay warax te gënuma leen a gaaw waaw waaw man damay warax te gënuma leen a gaaw waaye wax na dëgg parce que tegginu ñam du ku jóg rek yàlla may la nga mën ko def loolu moo tax mag ñi ngeen baal ma cheikhul xalifa radiallahu anhu bu daan añee doog mag ñooñu mu daan jëfandikoo du bokk ñoom ñam mais dafa xëy guddi ñu ni ko danga koy bàyyi lekk ci biir mbooloo danga koy bàyyi parce que seen cër seen orma yegg fi la ñuy mën a bokkateeg ñaneen du yomb ñu ni ko loolu faw nga arrêté ko nag mu xaw am jaaxle ak ñii la daan bokkal bu xëyee dem retrouver wu sel mu xaw di ci xalaat mais ci ëllëg sa waxtu añ dafa jot ñu jékki rek ni jigéen ji daan def bu fëggee ci bunt bi rek ñu xam ni moo fa nekk moom soxnaas ñëw fëgg ci bunt bi am ku góor gi ni ko soxna saa ngi fi naka la góor gi jóg dugg ci néeg bi rek fekk soxna si mu laal añ lal ba teg teg añ bi sëñ Babacar si ni ko lii nag mun ko ah la ko waxee ma ko waxee rek moom soxna Astou ko ah niñ la ko lañu ma ko waxee mun ko ah waa ñii ñii ma daan bokkal nag nu ñoo def mun ko ñu bàyyi maak ñoom rek. mu dem nañu daan lale ba ñu bokk góor gi mu lale ko ndab ba ñu daan indi ba ñu daan bokk ak góor gi mu indi ko ba ñu tegee ba yëpp daje rek mu ni leen mën ngeen tàmbali góor gi dafa am ngànta rek ah, waaye mujj na ba mujj dundam ba ni mu demee bokkatul ak ñam kenn parce que seen cëre yi yegg ci am na loo xamante ni nii kenn dootu leen ko nangul moom lay wax nit ne man leen te am lu nit critiqué te bu xamoon ne caaju yëpp du ko wax mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaan wax ni na Aboubacar jiite mais moom du roy ci Aboubacar julli boppam lay julli. parce que Aboubacar amul daraja bu mu jiitee yonent bi sallallahu ak ni mu toll yëpp amul benn cër bu mu mën a sukkandiku ci charia wala ci baatin pour mën a jiite yonent bi sallallahu alayhi wa oto bu nee na Aboubacar jiite jullit yi jiite mais yonent day julli julli boppam parce que seen orma ca yegg seen orma ca yëgg seen maye ca yëgg seen cëra ca yëgg ngeen baal ma sax rafetul ma di ko wax xam nga am na ñu daan wax ne sëñ Babacar kenn mënul compter ci moom parce que juróomi juróomi charia am da juróomi charia digle matalu ko parce que ajiwul bàkk am ñuy wax ni sëñ Babacar kenn mënul compter ci moom parce que juróom yi charia digle sax matalu ko waaye gis nga la mu ne ah tàggu naa ko Maodo mu ne mën naa ko déglu ba ba mu muy dem nag waxuma ci dara mais am na beneen raison dama ko wax kenn du ko dindi tolloon na foo xam moom itam kenn du ko jiite julli cëram mucc na yegg fu kenn du ko jiite julli moo tax bu imam Moussa di julli jiite jumaa itam moom day julli julli boppam roox la yooyu nag ah xëy na ku miine côté batin wala ñu am lu loolu la ci yee mën nga ko xam ku topp waxu mbedd nag mën nga wax la bëgg a wax waaye lii nag réalité la su ko defee eh, teggin yi nag dafa dafa am solo waaw boo gisee tey bari na ku bëgg di julli ji juma mais question bi muy laaj mooy ndax a ah, est-ce que tegginu juma ñu ngi sàmmanteeg moom ba léegi wala déet. parce que nit ñi seen portable yi la ñuy duggee ci jumaa yi lu bëgg a wax ci biir jumaa yi la ñu koy waxee et eh, loolu loolu ku xam euh, euh, adabul masjid doo doo ko nangu waaw gis nga yooyu yëpp mu ngi commencé di poser wu moo tax gis nga ba ba ñuy interpréter li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kunu ixlaasu buyutikum maa ngi koy waxtaane kilifa bërkitam mu ni ma taawil nañ ko ba wax ni bu nu ca yeggee wéet jaamu yàlla mooy ëpp yool dem ci mbooloo jaamu yàlla parce que nee mbooloo dootul lew biti dootul lew booy wut lu sell boo ko wutee ci biti doo ko jis moo tax ci sa wéetaay ngay mën di dimbaleen teg sa boroom rek di am looy jéem waaye mënatoo ko am ca fa nit ñay daje mënatoo ko am ci mbooloo yi moo tax dégg nga ma wax leen ko ci jataay yu mujj yi parce que euh, Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu moom dafa amoon force ba ko yàlla defal moo ak li nit ñi mënti bëgg bu yëgul ne am na njariñ kenn mënu ko ca yóbboo ah na dama daan xëy di wër di jàng alquran ci mbedd nit ñi di bëgg ndeysaan di yëkkati xaalis di ma jox mais nee na ba ma demee ba xam ni dégg li ci yàlla dénkaane moo ëpp doole nee na keroog laa ko bay nee na keroog laa ko bay bi ci des mu ni eh, bi mu daan def di jiite timis di biral jàkka yi di jàkka ji di fees zawiya bi di fees ndekete ñii ñëw di julli si timis yëpp bëgg a dégg baatam rek moo tax waaye sàmmonteeg waxtu wi taxul ba mu ko xamee ci la gëj a timis parce que moom nee na lu amul njëriñ du ci encouragé kenn kenn du ko ci yóbbu itam waaw ah, e eh, pour wax la loolu tabaarakallah yooyu yëpp mu ngi fii ba ñu ko toppee tey eh, deuxième partie bi sax ñëwagul troisième partie bi ñëwagul te nit ñi dañu wor ah nit ñi dañu war xaw ma nag teenu om barkeelu nañu rek muqaddima se daje yi du jeex waxtaan yi du jeex xalaat yi du jeex ndax am na xale yu toog fii ci jataay bi nañu déggee woon ma traité ko ci colonie de vacances bi bokkul ak ni ko traité tey parce que xalaat du jeex dégg-dégg du jeex liggéey du jeex hmm? mais Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu xanaa euh, euh, euh, nu mu tuddati mais dem na ci ba ca mujj dundam weer yu mujj yi dafa woolu Serigne Moussa ak Serigne Aline Gueye wax la yi ñu ci war a dindi yëpp ñu dindi ko parce que xam na ni xalaat dafay tolliku te njaboot boo koy bàyyeel message danga koy bàyyi message boo xamante ni ni gannaawam juumte du ko yomb ah moo tax diwaan bi yemu ci mujj dénkaane yëpp Serigne Aliou nag Serigne Moussa Lawo booba sax bët yi gëmm na ndeysaan ñoom la wax ñu ñu ko ci comme correction ah, keroog sëñ Moussa ak li Aliou ñoom ñoo ne keroog la ñu xam ni góor gi mu ngi waaj a dem. Hmm? alquran tey nii ñu koy jàngee mais am na ci baat yoo xam ne bokkul ak na mu wàcce woon alquran ñu koy jàng te wax ni kenn di ko soppi am na ci baat yu nga xamante ni nii Seydina Ousmane moo ko soppi pour hmm? wax la yooyu yëpp mu ngi fi e nañu ñaan yàlla di def lépp leer di ko tungoom rek xalaat yi jàng yi liggéey yi jumtuwaay yi dëkkuwaay yi yëpp nañu naan yàlla di ci def leer ak sutura te diñ ci defal barke mu ngi guddi te nit ñi dañu bari yitte dañaa am yeneen occasion incha allah ñëwaat ci yeneen aspect wu waxtaan wi et nu ngi sant Serigne Babacar parce que ku xool jataay bi ni mu demee ndax xam ni nit ñu wormaal nañu ko am na lu nu ko may di ko commencé ci man dinaay wax nag bis ne ni xaalam mën na ko may lu bari parce que defa laabir te dafa am ubbeeku tabaarakallah yombul sax ci ñi sant kan parce que ñi sant kan dañu naqari deret ci góor gi nga xam ne moom moom bis bi laata ñuy ñëw sax defal nañ ko hadiya de dafa naqari woon deret ba ku waxal ñaari baat ni la doomu toskare mas ñaari baat ni la doomu toskare dem ba wax ko député Blaise Diagne ca biir nit ña doomu toskare ah ndax naqari deret doomu tukulóor rek ko kooku moom seen famille bi ñoom ñëpp ah xam naa ci ci jigéen ñi ñett ñu xaw a rëcc ci tempérament boobu de wa di ndeysaan sama maam Binta sama maam Fatou ak defe naa sama maam Jeewo waaye ñaar ña ca des dañoo tàng ba kenn xamul luñ leen di def mu di maam Aminta Kan ak soxna ah, bu dee góor ñi ñoom moom ay militaire lañu ah ay militaire lañu waaye tabaarakallah eh xëy na sax du sikk parce que léeg-léeg boo bëggee faj boo melul noonu doo faj dama am sama benn yaayu séeréer bu ma dëkkandooloon bu ajjuma dafay sol yu weex ñëw taxaw ci bunt bi rek bu ma yëgee ni mu ngi fi ma génn nuyoog moom benn bis nuy wax waxtaanu liggéey ma ne ko na xale yi saw ma ci seen mbir ndax bëggunu ku leen di wax dara te man dama xaw a am dangar tuuti ma kilifa bo amul dangar du faj lu bari waaw sama yaay séeréer bi moom ma ko wax mënuma kilifa bo amul dangar du faj lu bari waaye moom yàlla def ko may boroom responsabilité la borom xam-xam la boroom yar la te laabiir na. te am na ouverture moo tax dama koy faral di déy sama mbokk yi ah, na taxaw rek ci kattanu yàlla barke ñu baax ñu ñu am dañu ñaan yàlla mu may ko kattan may ko wér suturaal ko suturaal njaboot gi mën na am yu bari xëy na bu nu ko waxee waxaat ko rek ci taxawaayam ak yéeneem yàlla wane ci bunt incha allah kooku sëriñ ñu ngi la koy seedeel suñu diggante yow ah di fedd li lak ba mu tàmbali kenn xamul kan la waaw daan na ñun ñii di ndaw sax daan nañu sàcc dem wala ñu rocciku dem kaw la eh mais sa góor ga daan waxtaanee ñun rek Serigne Ousmane tabarakallah yal na yàlla yokk leeram saxal cëram daan nañu picc yu bare eh, loolu itam yow mi yaa ngi ci ndax du toog te amul ñaari baat yu yóbbaaleel léeg-léeg itam boo mënee am loolee mboole ci jox nunu yóbbaale kon na yàlla la yàlla taxaw taxaw say bokk taxaw ñi initiative bi teg ko seen président ci Mouhamed Lamine Diop jaar ci sunu saasu bopp bi di suma mbokk daare di sama wéttal di sunu lépp Serigne Ousmane ak ñu baax ñi ko bokkal ñépp a ah, diggante kaneen yeeg sama complice yi waaw man am naa complice ci tabarakallah ñi ma ko bokkal diggante maam Thierno newoon naa bu ma ñëwee ma flatter leen tuuti sëñ Cheikh dañu toog di waxtaan mu ni ma les meilleurs héritiers c'est les cadets mun ma ñuy amee ndono mu jariñ mooy mooy caat yi kon lu tax parce que dana fekk kujje yëpp jeex ci kër xam nga caat buy moome ña doon bari man man ñëpp dootuñu man ña doon wujje ñëpp dootuñu man moo tax su ca defee jam jom rek kër ga kër ga neex waaw moo tax les meilleurs héritiers c'est les cadets kon nag tabarakallah e ma ne woon bu ma ñëwee ma tooñ ko sama sangi bopp yi di sama complice di sama xarit sant naa yàlla maa ngi de am wëllëre yu rëy ci biir famille bi te wax yu rëy amewu ko mu koy seq ñoom di ko dox di ko wax te yàlla rekk tax xam li ñu bokk tax xam fi jamono toll tax ah sunu tànt bopp yeeg sunu bàjjan yeeg lëre yi ñëpp a ngi ni toog am na ñu jiitu jóg ndax wér mayu leen ko ah, ñoom soxna Fat Seck ak tabaarakallah yaay ani bàjj tànt nday Mariam ak nday Maram ak ñëpp ba ca sama cousine yële jóge Tiwaawan nag ah ak sama mbokk borom kaala yu bële yi waxoon naa daaw na nu ma wutal kaala ah koy sol bariwul waaye rek joge ñu jógee ma kaala af dag bu bële man itam ah bu ma lonkee rek ku gis xam ne man itam ci la bokk incha allah ah ah itam mbégte ci ñun kon nag ñu sant ñëpp sant jigéen ñi sant bokk yi sant wëllëre yi ah sant itam sunu mbokk Birane samb eh, fan ba nu xam miinanteeg Pape Aïda lool taawu Serigne Abdou di xaritam di léppam tabaaraka e su ko defee kon mu sant ko waaye moom mu ngi eh, bay wàllam ndax ku xam bàyyam digganteem ak Cheikhul Khalifa famille Cheikhul Khalifa famille Seydil Hadj Malick et ku ko fekk fii doo ko laal loo fiy def kon nag yal na la yàlla taxaw ak say rakk parce que ñoom itam ñu ngi def taxawaay que man dinaay faral di daja ak ñoom te bi may ñëw rek la ma ci sëriñ Babacar tabarakallah indi ku ma ci jege wax ma taxawaay yi mu am ci moom am ko ci kër gi am ko ci njaboot gi loolu seen cër la ngeen doxal ko wàññiwul dara. yal na yàlla sàmm leen ci yàlla ubbi leen ci defal leen ci yéene góor ga te mottali taxawaay yi ah diggante sama cousin yu bopp yi Abdou Aziz Fall la nga ne ndeysaan sama complice bi ci sama wet Pape Amadou Sarr sama jigéenu bopp bi tabaarakallah sama jigéen ñi ma xam ñu sant si ñëpp mama la koy wooye ngir yàlla ñem yàlla barkeel mbooloo mi eh, yaakaar nañ ko sax incha allah dana ndax ki ngeen ko tuddee ci ñi amee woon liggéeyu ci dese woon secret ixlaas ci réew mi ci la bokk Cheikh El Hadj Abdoul ci ñi yàlla mayoon nu nu nu denc secret yu sell ci la bokk ata gis nga barabam ba na mu mel tey ci ku ci barab yi ñu jàpp ni ku fa dem ñaan sa ñaan mën nañu ko yëkkati moo ba nu xëyee laata ñuy ñëw te ñu ko defal hadiya parce que man mag ñu baax ñu ñoo am ku ci am bis walla mu yàlla am lu mu ma woon sama digganteeg yow rek ma defal la hadiya di ko dundale sama digganteeg ñoom sama mbokk yi yoon ba nu fa mujj ñu ñëw may ma fotoom bu jekk boobu ma ànd ak Cheikh Soukayri dama jàppoon ni sax sama kër ñaari photo laa fa defoon mu di bu Serigne Babacar ak bu Serigne Cheikh dama ni woon ba leen di ñetteel mooy bu Seydil Hadj Malick radiyallahu anhum waaye keroog buñ ma ëndalee photo ba ma ne ah Maodo yabalal na ma ku nu dolli wéttal moo tax maa nga jël photo ba def ko ca sama bibliothèque su ma xëyee yor sama kurus di janloo ak moom ah du tere maa ngi fas yéene itam photo Maodo ba mu bëgg bu dajee ma jël ko yóbbu ko ca barab ba parce que gannaaw yàlla ñoom la ñu am li ñu nampal yépp ci ñoom la ko yàlla jaarale yal na yàlla saxal seen cër ci seen njaboot te nangul seen ñaan te kattanal leen kattanal nu te nu wóolu dëgër rek waaw ah, bu nu bu nu flanché bu nu ragal parce que adduna lu sa cër rëy boo ragalee rek ñu man la moo bu leen ragal lu ngeen war a def rek déggoo leen ci kilifa yi ñu taxaw waaw ñu taxaw ndax góor gi mbay sàll yal na yàlla yokk ko leer sëriñ Babacar daf ni ko conseiller municipal bu déggul tubaab ci yow laa ko mës a ndax tubaab yi ñoo gën a intelligent suñu dirigeant tey du benn parce que ñoom dëkk bu ne kilifa gu fa ne dañu lay jox ku la représenté ci biir conseil municipal sëñ Babacar bañ ko laajee ku lay représenté ci conseil municipal bi mu mu joxoñ góor gi Mbay Sall waaye bis mu ñëw di ko tooñ rek nekkoon ndax conseil municipal bu déggul tubaab ci yow laa ko mos a dégg yow di dem ci biir tubaab yi di dem ñëw te yow déggoo tubaab moom waaye yow loolu dama la dala man ko ah, ndax am dégg naa tubaab de. mun ko ah te kafuloo mun ko ah dégg naa tubaab te mun ko loo dégg ci tubaab mun ko benn baat mun ko benn baat daal laa dégg ci tubaab mun ko ah maa lu baax la loo dégg ci tubaab mun ko baatu cochon da xam naa <laughs> baatu cochon da xam naa lu muy firi góor gu tedd gi taf gémmiñam ndeysaan muuñ ne ko ah waaw loolu mbaama soo ko wax ci kaw suuf man ko sama digg ak yàlla mas naa koo wax commandant de waaw waaw commandant de cercle mu ni mas na koo wax ni ko cochon nga waaw loolu mas ngeen ko dégg dem ci bureau commandant naan ko cochon nga xam nga loolu ku sa ku ñu ajul sa fit fu kawe manuloo ko góor gi tax gémmiñam ni ko ah xanaa yóbbu na la laaxira mun ko ah déedéet moom ku baax la sax mu daal di may may siro mu may ma siro ma naan <laughs> laa nag sëñ Babacar Si xaw a dute ni ko ah te siro la la may mun ko ñooñ du ñuy faral di naan siro de <laughs> te siro la la may <laughs> ak góor gi nag xel mi doog a dellu si ni ko hee commandant mooy xaj. mu ne ko man sirop yi ma daan naan dafay saf suukar waaye kii lim ma may daa forox toll sëñ Babacar ne ko ah ragal naa fayu borom xam-xam la fayu de waaw waaye gis nga daawul tiit mbay sàll lu ko sëñ Babacar yónni mu dem dox ko dégg naa commandant de cercle mas na wax sëriñ Babacar ni ko sa yàlla mbay sàll moo tax ma nangu ko mënu ko parce que lu ma kenn ñemewul a def bu sa soxla ñëwee mu def ko mu ne dana ma fekk may sieste sax mu fëgg ma dana ma fekk may réunion ak sama mbokki tubaab yi mu fëgg ma mu ne ma fekk sa soxla noppiwul duma may jàmm waaw ah, xam nga loolu ku am kilifa ku toll ni sëñ Babacar war nga am fitu lu mu la doxloo nga mën ko dem doxi ko ma tax ngeen am fit waaw dama am wëllëre ca Italie mu woo ma ndax problème mu këyit dugg naa ci lu ne mënuma ko am mani ko dangay dem ci avocat yu jubati yi ñu butal la këyit gu jaarul yoon ma ni ko parce que borom njaboot nga dañu am ñu aju ci yow te mënuloo toog foofu àll ba itam nag bunt yi nga mu war a mën a jariñoo dog ma ni ko demal seeti avocat yu jubati yi ñu wutal la këyit gu jaarul yoon man ko bari na kuñ naan la mu ngi dem di ñëw këyitu résidence la am te fekk na ci beneen tur la ko am amee wu ko ci tuuru boppam waaw ah topp ci gannaaw bu nekk Sénégal nekk fi imaamu ratib ah. bi ñu ñëwee ba ci aéroport bi hmm. mu génne passeport Amérique hmm. joxe. jabaram joxe passeport Amérique. Hmm. boobu ba léegi. ah ci jaaxle. wallaay. ndax ba am. ko. nekk américain ma ni ko gis nga man. déglu leen bu baax li may wax ma ni ko man su ma nekkoon ci seen réew yooyu man ko dinaa wëllërenteeg ba ñuy toj banque yi sax ma wëllërenteeg ñoom. su ma fa newoon. ba ci wëy wuy toj banque yi sax naa leen def xarit ah xaw ma kañ laa ci am soxla maa may soxla toji banque ma lëngoog ñoom rek lu xew ma xam ne loolu la yàlla indi ah pour wax la wax na bu leen tiit bu leen tiit boo amee kilifa doo tiit doo tooñ nag doo tooñ nag boo amee kilifa doo tooñ waaye bu leen tiit li ci des nag nu dox àdduna kenn du ko àttee gannaaw kanam lañu koy àttee yal na nu yàlla sàmm yal na nu yàlla suturaal yàlla sàmm réew mi sàmm kilifa yi sàmm njaboot gi allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatixi lima uxliq walxatimi lima sabaq nasri lxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wala alihi xaqa qadri wa miqdaari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin alfatix ñu jox sëriñ bi jóg ba dem te kenn waxu la ni jërëjëf ñun dañu am suñu style xëy na bokkul ak style yu ñeneen ñi yooxu tàpp way dugg génn coow li ni kur ñu ni conférence ba neex na te doo fa jële dara du suñu style maanaam folklore bu metti bi te mi ngi bëgg a tas Sénégal léegi ci wàllu diini parce que bu folklore amee rek sérieux dootul am waaw mais ku xool jotaay bi léegi ni mu demee nga xam ni sérieux am na fi li mu doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Aboubacar bu ko daan bu daan jiite du topp ci kawam mais am na kenn ci ponklu Seydina Cheikh yi. yonent bi moo ko feeñu benn bés wax ni ko bu dul àjjuma bu la kenn jiiteetu julli bu dul àjjuma bu la kenn jiiteetu julli waaw li sëñ Cheikh waxoon ne dafa amoon benn mag bu nekkoon ci Irak nee moo daan jàngal xale yu jigéen yi fecc ba buy pare day fekk tisbaat jot mu sonn dootu du mën a julli boo ko joxee imaam Malik mu atte ko rey ko te bu dee imam Shafi du ko ree parce que daf naan phénomène la moo tax mujj gi ñu génne benn téere tudd ko al fiqhu maliki bi thawbihi al jadid parce bu ñu bëggee atte ci imam Malik ni daan atte rek àdduna tukki waaw waa ji moom a ko yónnee ca Mauritanie waaw tabaarakallaahu imam Malik toog na ci biir na war diir bu yàgg tudd dem julli ji ci biir rawdu yonent jàkk yonent bi moom imaam Maalik dafa julli ji te li ma wax nee ne Cheikh Tidiane wax na ko nee na jamono bi nekk julli ci sa biir kër moo gën di farate nga dem ci jàkka yi Cheikh wax na ko waaw e su ko defee boo ko waxee nag damay wax toujours ni nangam boo ko waxee boo saag bu ma ko waxee ci publiquement boo saaganoon ñu dóor ma yet waaw parce que wa taxsibuhum jamian wa qulubuhum chata dootuñ ci am droit ngeen àndandoo julleendoo ci jàkk ji ba pare kenn ku ci ngeen génn kenn ku ci nekk yenn sa moroom dee est-ce que jarati ne dem ci jàkk julli yooyu mooy tax waaw su ko defee tabaarakallahu macha allahu bég nañu kontaan nañu fan yii yëpp ci fanaane sax na ant mii fi jege ci ci ci euh, euh, naka lañ koy waxati conférence mi mu doon def keroog mi ngi ko def ci crise de valeurs te ci la ñu toll waaw crise des valeurs ci la toll hmm? parce que damay wax ni ki nga xam ni pour mu am wërsëg il faut mu ñëw ci yow fen pour mën a am wërsëg te day am waaw wala boog mu ñëw yàqu geru euh, deru gor pour am wërsëg ah. yooyu yëpp mu ngi fi yooyu tànk dindiwuñu ko dara du sotti te danaa leen wax ni nag demuñu fenn de demuñu fenn parce que diine joo xam ne ci gàmmoo conférence rek lañ ko teg jeex na c'est tout du loolu parce que diine itam dafa am principe il faut nga jaar ci principe yi parce que boo ci jaarul rek wàcc nga yoon. waaw su ko defee yooyu yëpp ñu seggaat ko xoolaat ko xoolaat yarin wi yëpp parce que li mu wax ci biir kër sëñ si itam moo ci nekk ki bind benn téere tudde ko ma mawaqifun yajibu an turaja waaw nee taxawaay ci ci biir kër sëñ si war nañ ko xoolaat parce que li taxoon ñu naw leen bu fa nekkatul luñ leen di toppee ti doy ah waaye diw diway samaam rek diw diway samaam lu muy jëriñati te jikko yi nekk fa yooyu yëpp lu ñu war a seggaat la jàngaat ko jàngalewaat ko te li mu wax war nañuy jàngaat waaw dañu war a jàngaat waaw alxuraan dañ ko war a xoolaat settantel ko atafakkur wa tadabbur li te dabbaru li te dabbaru ayaat yi wala yi te zakkaru ulul albaabi loolu moo fi nekk waaye alxuraan gi jàng jóg dem rek ku nekk nu mu neex a toogee jàngi jóg dem te dabbur amul tafakkur amul lu muy jëriñ su ko defee yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel te wàññi folklore bu metti bi waaw jëriñu ñu dara su ko defee tabaarakallaahu ñu gërëm rek li may wax toujours ci sama ñaan nga danaa ko waxati allahuma tahir qulubana min annifaaqi wa ayunana min alxiyaanati wa alsinatina min alkadi wa naa min alriyaay ñett yooyu ñeent yooyu moo tax mënatuñu dem moo caractériser la société sénégalaise actuellement waaw te kenn mënu koo dindi parce que kenn ku ci nekk dafa nga ni ci yow warugar la devoir la devoir la nga fen devoir la nga def naa feq devoir la nga wuruj devoir la nga ngistal ba kañ lu muy jëriñ waaw ñuy goroom ci soxna umu mi gay man xaw ma dañu demoon conférence xaw ma fu ñu mënoon ti dem waaye conférence bu amoon tey jii nañ koo bàyyi ñëw fii ndax ñoom ñoo moom conférence bi su ko defee tabaarakallaahu ñu gërëm ñëpp ñaanal ñëpp yàlla nañ fi dajawaat waxtu wi déwén kenn bañ a manqué te bu déwén na may ñaaw yàlla na mel ni ren wala boog sax déwén yàlla na dàq ren ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, sama waakat nag tudduguma leen ñoom soxna si ay sëram ak i bokkam soxna fari ñu ngi fi tabaarakallaahu mobilisé wu képp ku ñu am oo nañ la wax ne la nga ñëw ci conférence bi waaw su ko defee ñu gërëm leen sant leen ñoom tamit ñaana leen yàlla boobu rek moo ma dese woon kullu amin wa antum bi alfi xayrin asalaamaaleykum waaw jëf wallaay jërë leen jëf jërëjëf tabaarakalla yow it ñu ngi lay di la sant di la jaajëfal ndax bële bi waaw ndax ndax bële bi ñu ak bële mooy couleur ndax sañ kon ñu ngi lay jaajëfal waaw na xam naa ne danañu laa commencé lancé kii bi pour affaire fonds yeeg yu deme noonu compte beeg yëpp ubbi nañ ko pour kër sëñ kër Si gi fii ñu defaraat ko def fi daara moderne def fi lépp tabaarkàlla ba bu ngeen fi ñëwee rek macha allah bég waaw.